Yes. yakkuñu dara comme beneen mi ko aduna ba mu daara ba mu naan may dara jooni fiyam ala jooni fiyam jooni fiyam an kay haalde ma ay jaban jooni kay fiyam ala jooni fiyam so ñetti ma fen kam sa fi kam hokkuma galle dakar sa fi kam hokkuma galle non maa ngi filmé mu ngi nayi ko toog fi ñu naan lay debal ay yow bokkul ah woppa haala ah ah. Thank you.

Merci le frère Cité, merci pour tout Covignan, merci la famille. Nous ngi une permanence APR donc comme ni ngeen ko xamee rek ba ci parrainage actuellement nous avons 3 millions de parrainage Nous mooy bal ba tàq sénégalais yi tànn nañu seen président seen futur président du doon kenn ku dul Amadou Ba ñu daal def yoonu yokkute bi muy continuité. jaa ngeen la famille on la Farba Ngom si ma la Farba Ngom si la Farba Ngom si Amadou Ba le futur président de la équipe du Sénégal dugg final. Amadou Ba dugg final. bu APR Amadou Ba ñëw na. maa ci xam àdduna il est le meilleur Amadou Ba waaw waaw ndeysaan Amadou Ba rek Amadou Ba rek Farba il est là Farba Ngom il est là Farba Ngom il est là on a déjà gagné inchallah dès le premier tour Mamadou Talla Mamadou Talla waaw

Mamadou Talla Thank you. notre ami et frère, Michel Ministre avec Ablaïden, Il est le meilleur. Le ministre de la région. Le ministre des Postes le premier ministre Macky Sall président de la République mbokk yi tu bi délégué régional non l'ensemble de la région aujourd'hui monsieur le ministre de l'élevage monsieur le ministre des postes les du chef de département maire de Ranérou maire de Calais et maire de Mata, à l'ensemble des maires et les Amadou Diallo et Abdoulaye Al l'ensemble des borom Ourossogui. l'homme fort. waaw

Mbacke nee na Amadou Amadou wallaay léegi nag li fi ñëw yëpp ay responsable maire yaa ngi fi député yaa ngi fi

échanger fi mu toll nii dañuy jëm ci présidentielle na ñëpp ànd am ñoo xam ne dañu toog waxtaan bu jubóo waxtaan bu lépp borom war a soogi ah il est le meilleur il est le meilleur le président a bien fait il le mérite, Machallah. Merci, Ablaye Diagne. les conseils du Conseil social et environnemental. Wow, wow. Mesdames, Messieurs, Fouta derrière Amadouba. Wow, wow. On y a ramadé, on belle son âme. Mashallah. Wow, wow, wow. Amadou Rek, Amadou Rek, Amadou Rek. Mesdames, Messieurs, camarades du parti et de la coalition Amadou Rek. Je voudrais à l'entente de mes propos exprimer toute ma satisfaction et ma profonde gratitude à son excellence le président Macky de m'avoir avec vous, monsieur le Premier ministre, premier délégué régional de Paris pour votre candidature, cette grande coalition de l'Europe à À l'entente de mon propos, je voudrais remercier les opérations de qui sont investies massivement pour la réussite des opérations de collecte de parrainage. Amadou Barek à en passant par le Bénin et le Dawa, du Danemao, du Djeri et du Féroulou. Nous avons vu les jeunes, les femmes, prendre le soleil, la poussière pour la tente de parrainage avec détermination et engagement. C'est dire que ah. toute la population de Matam réaffirme une fois de plus et pour toujours son soutien et son engagement à l'endroit de notre grande commission, la commission de Nobokéakar. Alors, M. Akoulaïkan, au terme de cette opération, Monsieur le coordinateur national, nous avons vous nous aviez fixé un objectif de 150 000 palais. Nous avons pu collecter aujourd'hui ce premier lot de 181 000

je suis de l'ensemble des ceux qui sont là avec nous le sont mobilisés les mères et les jeunes ensemble pour vous donner donc ces résultats que vous nous tout à l'heure que l'ensemble des militants politiques et sympathisants de la coalition communautaire pour réaffirmer notre satisfaction pour le choix de son excellence le président Matissel qui porte le choix sur vous à Moluba. Premier tour Wallahi Amadou Konga Wallahi Wallahi yaakaar Amadou Ba ku am leneen jëlal ñun Amadou la nu bëgg moom la ñuy topp il est le meilleur kenn du moom ci mim réew le futur président de la République du Sénégal Amadou Ba Kaliphone ko wax ku mer taxul Gambie 拜拜 min sarrihi wa aha soo wóoteeg moom Dakar. bu dee am aussi maanaam. ndeysaan. yéen gërëm aussi si Macky Sall mu leen yow. Macky Sall ay amoon. bu boobaa ñu nekk nii commencé ko foofa. alors que.

vai tocar.

incha allah tout ira bien. kon ba ñu doon baax na ko daal. ku doon teew doon la. seen quarante yu bari la. su fekkee. Abdoulaye Diagne. ah ñëw. su fekkee. Farba Gomes. Passamos a congregação. Mandido presidente da Mas realizado o seguinte. Inxalá. Oita. Acolhereu. Lá para que sala a mata. E aí? E ele foi condenado. Inxalá. Ele é o senhor Uruguai. gonga ah inshallah futur président Amadou Ba

dica di millionati nogas, quelli che hanno occupato il turismo, quelli nogas, del après 2026 muy cycle ma foofu programme maanaam nag esprit yu laa def ndax li ngeen fi invité ci parrainage xam naa ni xew Ablaye Ndiaye daan na mais dara seen xel di doon di ñu responsable yu nekkee di nuyu seen responsable régional honorable député Farmato di nuyu tous les ministres di nuyu en fait di nuyu l'ensemble des maires fonction politique di fi nekk yëpp ak grand bi ñu ci am maa ngi leen di leen jox leen wéy président de son peuple maa ci am mais yi ma gis fii tey Daouda Dia ku ko gis ba ko nekk ay nit ñu ay nit ñi jàpp te ñu bàyyi moo tax bi ma fàttali ne samay pare la xam naa dara agora na fala para o outro também. Farba, come. Lai, wallahi. Come. The leader boss say não. come. Tell you. Thiam la jantal ministre ministre xale macha allah am na solo. du lépp lu ñuy diggante lépp suñu boppam lu ñu gëstu xool ko xam ko am alal yi koy def incha allah dina commencé deux mille vingt quatre te sax mu xaar élection pour commencé. honorable président Macky Sall moom lépp lu jëm ci Sénégal bëggul benn ndax daa foog foog doomu Sénégal ma leen di sant bu baax di dalal xel ku bëgg président président bëgg na ko foog na kon bu ma ko nee am na loo xam ne léegi mu

on dit que la jeunesse est l'avenir. la. la jeunesse est le présent. la jeunesse est le présent. Nous avons toutes les politiques de jeunesse dinañ ko renforcer accélérer ah. amplifier. benn wàll la il est le Buuro Soogi Daouda Dia ils sont compétents Ablaye ils sont sérieux et engagés pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le département respecté jërëjëf ndeysaan ah Ablaye moom rek Farba Ngom a weltanaama macha allah macha allah macha allah macha allah il est le meilleur il de la République moom la Amadou Ba avec le ministre de tous les ministres mu ngi nii bërëbu Rasuul gi yéen am ko en Kali TV macha allah kontaan nañu d' accord d' accord d' accord merci ministre kontaan nañu yàlla yàlla fay macha allah ndam rek Ablaye Diagne a ngi noonu le jeune Ablaye Diagne def liggéey bu am solo ci parrainage bi kenn du moom kontaan nañu macha allah ay xel am liggéey bale balaa ñu réero jërëjëf merci après ñu déggoo macha allah xel dal na xel dal na xel dal na am nañu victoire incha allah li ku ko gis xam ne xel dal na ndaw ñëpp a ngi nii dajaloo fii ne kenn la topp mooy Amadou Ba jaajëf jaajëf jaajëf Amadou Ba rek ndeysaan waaw waaw permanence bi wàcc na ndeysaan waaw waaw ndeysaan waaw waaw macha allah lii dafa fees si xol ñëpp kontaan nañu ñëpp bég nañu ndeysaan mobilisation bi am na solo mobilisation bi am na solo kartal ko gootal Amadou Ba cinquième président incha allah waaw waaw waaw lii neex na kon jaaraama Allah jaaraama bandiraɓe fuutankoɓe on beltanama machallah on beltanama a jarama a jarama a jarama a jarama machallah a jarama aha inchallah a gonga gonga a jarama machallah on beltanama nam a a a amadou ba rek Amadou Ba rek on jaaraama on jaaraama ah naam on jaaraama on loolu xol sedd na jaajëf jaajëf gars la famille xol sedd na fii ci permanence bu APR gars yi topp kenn naam ku dul Amadou Ba Amadou Ba rek waaw maa ngi ànd rek Amadou Ba rek Amadou Ba rek gars yi nee nañu Amadou la futur président de la république du Sénégal moom la ñuy topp papa yi nee waaw yaay yi nee waaw xale yi nee waaw sénégalais yi nee waaw Amadou Ba rek ku naan loo wax ah. wallaay ah waaw déggal loolu déggal loolu law bee ngi am leneen jëlal ku am leneen jëlal barke Rasulullah Amadou rek ndeysaan quand c'est important quand c'est important c'est Kali quand c'est les dimanches fii ci permanence bu APR nee nañu Amadou Ba rek la ñuy incha allah ca élection yi di ñëw ca l'an ku am leneen jëlal ñun lu nu am duñ ko weccoo keneen lu nu am jamaa la lu nu am lu baax la lu nu am tarkal la moo tax ku am leneen jëlal loo wax ah, ah moom la première dame dina la woo jërëjëf jërëjëf jërëjëf même jërëjëf merci jërëjëf nuy nañ leen followers yi nuy nañ leen yéen ñi di topp Kaliphone Sall Kaliphone nuy na leen ñu ngi woon fii ci permanence APR fii ci doon couvrir li nga xam ne mooy andi parrainage bu waa région de Matam ki nga xam ne mooy honorable Farba Ngom jiite ko kon zéro faute askan wi ñëw nañu civilisé ay nit yu noble ay nit yu set wicc ay nit yu mat lu nu doon ñoo topp président Macky Sall fii doo fi gis ay xu ndang-ndang fii doo fi gis ku manqué fii doo fi gis ku amul esprit macha allah le Sénégal que nous aimons le Sénégal bi ñu bëgg Sénégal jàmm Sénégal salaam loolu la suñu papa yi xam loolu la suñu yaay yi xam lool la ndaw ñi bëgg Sénégal xam moo tax ñu ne réew mi duñ ko jox kenn incha allah ca 2024 ku dul président Amadou Ba le futur président de la République du Sénégal ku am leneen mën ngaa dem feneen sama gars yi Amadou rek la ñuy topp ñu génn ci biti xool naam rek Amadou rek rek jaajëf loolu am na solo ñu xooli ci lu fa am ñu daal di leen di koy won macha allah macha allah sénégalais yi ñëw nañu nee nañu topp ñu kenn ku dul Amadou Ba sénégalais yi bëgg Sénégal nee nañu Amadou Ba la ñu topp lii dafa rafet macha allah njaaram lii dafa rafet macha allah. le futur président le noir machallah permanence bi feesoon na xam nga ni bu jinne beugé da xaar ku yak daanu far ba a woté won motax fale mu melni wa région bu Matam ñoo ñëwoon sunu mbokk Haalpulaar yi né nanu hé du doon kenn ku dul Amadou Ba jërë ngeen jëf on jaaraama on jaaraama on jaaraama macha allah on jaaraama on sanama merci la famille jaajëf naam waaw bisimilah ndeysaan on jaaraama macha allah ndeysaan on jaaraama a grand frère a weltanaama allah a weltanaama jaajëf moytu moytu la tori ndeysaan permanence fe son hôtel Farba Ngom moo woote woon Farba Ngom bu wootee sénégalais yëpp ay ñëw Farba Ngom bu wootee fuutankoobe yëpp ay ñëw l'union fait la force suñu mbokk Haalpulaar yëpp daje fii nee nañu duñu woteel kenn ku dul Amadou Ba l'homme fort macha allah on continue xam nga ne li for na dama ne xam nga ne li for na waaw waaw gis ngeen ko macha allah macha allah li for na am na solo ndeysaan on calminaama macha allah macha allah farba ngi noonu farba ngoom a ngi noonu ma ne farba ngi noonu farba ngoom a ngi noonu il est le meilleur farba ngoom farba ngoom est là farba est le meilleur farba ngoom moo woote macha allah ñu gis Moussa Bocar Thiam le meilleur ministre de sa génération macha allah ndaw ñi nee nañu Moussa Bocar la ñuy topp d' accord monsieur le ministre. merci monsieur le ministre ndeysaan Moussa Bocar Thiam a ngi noonu ndaw ñëpp moom la ñuy topp nee nañu Moussa Bocar tu es le ministre vrai ministre bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi noonu ndeysaan gis ngeen loolu. loolu foor na macha allah noonu ndeysaan Mamadou Talla macha allah ndaw ñi waaw waaw waaw ndaw ñi nee nañ Mamadou Talla la ñuy topp macha allah non non woo ma woo ma woo ma woo ma woo ma ndeysaan sunu jigéen bu mag bi kenn demul mu des bëgg président Macky Sall ba mu jeex tak ndeysaan ñëpp kontaan nañu on beltanaama baaba on beltanaama macha allah ndeysaan lii la non non non bul wax loolu bul wax loolu non bul kii nag après jaajëf jaajëf jaajëf ndeysaan ndeysaan futankoɓe beltima alane koɓe bamdi ɓe moƴƴani ɓe moƴƴani a jarama a jarama baba a jarama a jarama ñu ngi nii de waaw tarkallah wallaay wallaay am na solo am na solo wallaay am na solo wallaay am na solo am na solo Daouda Dia Daouda Dia noonu eh Daouda Dia alel Sonama ndeysaan Daouda Dia le ministre Daouda Dia ndaw ñi nee nañu moom rek la ñu topp eh Daouda Dia eh on bel sanama jaajëf jaajëf waaye xale yi bég nañu de ah xale yi Haalpulaar yi kontaan nañu nee nañu président Macky Sall na sa xel sedd na sa xol sedd incha na sa xel dal bu ëllëgee ca l'an 2024 ñu jël réew mi daal di koy jox Amadou Ba tarkalla incha allah ndaw ñi pare nañu yaay yi pare nañu papa yi pare nanu ñëpp pare nanu nee nañu kartal ko gootal gis li ñu andi cent et quatre mille parrain en de Matam région de Matam bég nanu tarkalla ñëpp kontaan nanu macha allah zéro faute fuutankooɓe on mbeltanaama vive wa fuuta kartal ko gootal macha allah rafet na sunu xel dal na sunu xol sedd na kontaan nanu ci président Amadou Ba futur président de la République du Sénégal waaye kenn président Macky Sall ci mim réew ndeysaan Wa wa wa. Inshallah, allah inspecteur impôt domaine moom it ñu ngi gis mu ngi def liggéey bu am solo si ndaw Fuuta yi ñëpp kontaan nañ il est le meilleur jibi si borom inspecteur impôt domaine o oh, mbeltanaama jaajëf jaajëf jaajëf ndeysaan xool sedd na ñëpp ñëw wuy si zéro faute sunu yaay sunu papa ñëpp ñëw nanu nee nañu kartal ko gootal waaw waaw waaw ndeysaan Fuuta wi eey ñëpp bég nanu oh tët tët tët tët foo sànni mbàtt mu toj tët mu toj tët tët tët tët tët eh, yimɓe mbeltiima lii ni rek xoolal ma rek xel dal na xel dal na naam xel dal na Amadou Ba premier tour incha allah Farba rek mashallah fuutankoɓe ah, eh, eh, ah, on beltanama a mashallah so mashallah e tet tet tet tet e tet tet tet tet a tet tet tet tet allez la famille allez on est là on est là on beltanama on beltanama on beltanama mashallah fuutankoɓe mbi kartal ko gotal so président maksall umnima ɗo hay soko leggal gotene o fawi ɗo amadou ba